xanaa jomb bu Grand Théâtre ak Kéba Seck moo ne way naan maam yaayi fallo, yaayi Serigne Fallou. Talibé Serigne Fallou Mbacke Balak Maram. Cheikh Makodé. Ya Ndiaye awa awa. ko. Mariam seja. Wow. Seja ndeysaan waaye baara du nit baara naan gurundang gurundang gurundang eh. gurundang oh. gurundang gurundang maam njaay sama baara de dama koy teral baara sama way bi da cee sawar bu wëkkee baa wayee nii ba daane rek mu ko gurundang gurundang gurundang gurundang ay waa ah, jëlal maam njaay sama baara du nit nag baara du nit. dafa ah. naka jekk ma xool la xam ni doo nit. yow noo spécialisé si guru ndangu ndang. non baara mën na nag. moom baara mën na. ñoo ngi nii dañuy joué ak. ah ban ban oto keebaa laay dugg oto keebaa maa koy dawal tay tey oto keebaa laay dawal. <laughs> oto ngay wàcc. oto keebaa mooy oto Kéba man moom laay dawal tey si si si publicité bi oto Kéba laay dawal ni ma leen ko waxee rek teel na a seen seeni billet ngeen bañ a ñëw di raa billet yi jeex na billet yi jeex na ci biir moo tax ñu génn nii Kéba ngi nii dañoo ñëwoon tey pour defaraat contrat bi parce que billet yi dafa jeex ci biir ñu xam ne nit ñu duñ fa xaj ñu indi ko fii esplanade esplanade de théâtre mu ngi nii Es dat jaar direct bangi dia dee Mana, ma mana ak ma ànd man sama garde corps baa ngi nii ma ànd ak ba pare da xam ni ngay nak da xam départ bu la rek xam nga awa ama suñ ko woowee rek xam na fu dem na parce que gis ngeen sànq bi ñuy fétti pat def la démon ñu ne ko esplanade lañ dem mu dem soli casquette sol culotte sol t-shirt dafa garaaw xamna ñi xamna li ñu wara def dafa garaaw waye nak ma leen wax di leen jox dajé la vingt xam nga nit kenn du ko xeebal bi sa man awuma benn bés ci aduna lu dul la vingt la vingt dama bëgg ngeen ñëw wuyul si ma Kéba Seck mi nag mariage si tubaarkàlla macha allah bu waxtaan bi jeexee ambiance bi jeex waykat de peuple ki ma bëgg nee naa sama carrière joué na ci parce que way na ma lu rëy te comme ni ma koy waxee sax li ma way dafa rëy Sénégal gépp koy waxtaan xale buy jàng wax danaan maam Ndiaye savon yàlla nag yaay mbër yàlla yaa baax ndax Kéba bi may ñëw sa soirée xam lu ma fa indi woon damaa demoon lekk ji jën <laughs> lekk jën a jën a jën a jën ba mënumaa taxaw léegi am ku ne keebaa dama dëgg ma ne ko keebaa ah dañ dem rek xool soirée bi waaye gis nga bi ma duggee suwaare soirée bi xam nga lan nga ma wax suuma la waa yàlla nangul ma ne ah xëy na wayu ma mu ne nga nga daal di bàyyi loolu daal ne monsieur le maire Ali Thiaw meeru ma ne ah kon yàlla baax na dina ma mës a waay ma xool la rek nga naa ma suuma la waayalee ñëw xam nga damaa bandi na ma sol culotte di yaab nga naan ma maam Njaay savon baara naan gurandang gundang gurandang ay maam Njaay savon xale yaa ngi dee quatre mille deux cent personnes ah. te xale yi dañuy reer nii de génn guñu ah, ñu ngi reer nii ngi reer nii maanaam sa waaye kee ba tey di nga saf ci TikTok bi xale yi capturé nañu waaye tey buñ la capturé waa ku la ñawal Kéba. Bébé Yaay. Bébé Yaay da ñawal la ba pare ñawal man moom bii moom dama ci ñawal Amakode moom bii neex na ma. Bébé Yaay. borode cotonnade la Kéba sol cotonnade cotonnade original. moo mën a solu nag. moo mën a solu. moo mën a solu. ay waay moo mën a solu. Kéba sekk nag tubaar kàlla. kii de mënul wax. man daal l'essentiel ku ma tooñ dama koy yóbbu moom. <laughs> foo yóbbu. kii. fi ne mooy sama garde corps. Ah. kenn yabu ko ci réew mi xool ko. gisoo ko ba ma ba ngeen may woo solul woon lii de. Ah, kan moo tooñ. kee ma kenn tooñee ci tiktok bi. moom laay woo non ku la tooñ nga bàyyi mu seet. déedéet kii laay woo awa ama. bu naan naan boo la tooñee bu la boo woo yaa wax nga lan lay def daan ah looy maam Ndiaye sama xarit la loo ko wax dëgg neex <laughs> wax ma foo nekk rek boo amee ah, fi ah, ah, yow mi may tooñ danga ma sori barki Serigne Touba ah doy na waa de ñun de dañuy tourner clip nii. clip bi nag ay xeex ak ay jaase ay pistolet ana pistolet bi may <laughs> yor. pistolet waaw pour kii bi. pistolet bi yow génne ma sama maalo oto bi am na benn pistolet bu si ni <laughs> waaye man wéru ma dama koy tiimale ni dóor ko ko am problème. ah xam nga ni xam nga ak gaan laay doxonto ak gaan. ak gaan laay doxantoo. bi. du ma ko wane waa TikTok dañ may tëj ndax dama koo mës a génne ne nii rek waa TikTok bloqué ma ci laa ko tuubee ba tey dama koy wax nii rek du ma ko génne. xale yi nag ñoo mën a seetaan. xaaral fi mu ne nañ sama waykat bi nag. nañ nañ nañ nañ neex. ba pare ama lan moo gën a neex. Ah. man sama waykat bi njagamaar nga. ndig njagamaar. njagamaar. mooy dangaa jantal. boo ci meekoo koo ne sàng ma mu sàng la mooy njagamaar ba pare jongo may kàddu ngéwél nga ah. Ah. kàddu ngéwél mariasin da ngay dégg dëkk bi yëngu foofa toj salaamaaleykum salaamaaleykum ça va ci loo nekk